Mangi ngi nuyu ñu ma fi fekk te ngeen may ma nag ma jiite ci nuyu yi monsieur le maire Palla Samb yóbbaale commune u Fann Point Amitié wante ma jox mention spéciale à maîtresse Dieynaba madame Pen Dieynaba Ba damay ñew légui ni maa ngi romb benn école gis vraiment ay ay tout tank. ah ma dal lolu wax dëgg yalla machallah yalla na yalla xeb doli fofu la ma wax mu ne ma am na sax école bu nek ci commune Mermoz Sacré-Cœur ne te école yëpp ay titre foncier yu madame euh, Pen la yàlla na yàlla xeeb dolli yàlla na yàlla xeeb dolli maa ngi waaw yéen de moom de kii de moom animation bi mention spéciale parce que animation bi moom wax yalla yàlla dafa xurbate daga waaw te nak euh, am solo tamit animation mom euh, day ànd ak humour la yàlla xeb dolli may remercier tous les membres du bureau municipal et du conseil municipal de la ville de Dakar ñu ànd ak man tay ci euh, parrainage bi parrainage bi nak dinaa si parce que dafa am ñu bëri peut-être réaliser gu ñu importance aux élections parce que l'élection bi Sénégal, Sénégal le Sénégal ba tey ma bëgg a wax jooju na ngeen ma ko mbokk yi ngeen ma wax jooju tamit ndor yi ak soppe yi nañ ko déggé 1960 ba c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous sommes si proches d'une cohabitation cohabitation Moylan, cohabitation Moy nguur gi Macky Sall yor tay nguur jooju Macky Sall amana ci yenn rek la dess amana élection yi ñi am le 31 juillet Inshallah 2022 il y a de fortes chances soit ma kaw que cohabitation ci cohabitation Moy peut-être Macky Sall restera président du Sénégal. lu ko dese ci mandat wante mane ne euh, lu ñuy coytu ci réew mi mooy ñàkk ormal doomu aadama yi mooy nooteel bu ñuy woote mooy yebel bu ñuy woote mooy jaay doole bu ñuy woote mooy dund bu seer bu ñuy woote mooy ñàkk démocratie bu ñàkk am ci réew mi loolu yëpp mën na dakk balaa 2024 assemblée nationale bi

kon nag mbokk yi dama ne dama ne mbokk yi dama ne ma ne ma ne dina dak incha allah lépp dina dak incha allah dama ne lu may wax nii lu tax mu am solo mbokk yi ab déglu rek ab déglu rek lu tax mu am solo mbokk yi lu may wax nii maa ngi nuyu suma doomu nday monsieur le maire des HLM di ko jox wàccuwaayam di rafetlu teewaayam fii ci mbooloo bi mbokk yi parrainage bi lu tax mu am solo nu ngeen ko xamee daanaka ci gàttal coalition Yewwi Askan Wi mënul am problème mu parrainage parce que daanaka dóor lu ngeen dóor fii bi Dakar ñoom daanaka xob bu nekk bu leen yàlla baaxee suñ ko compté woon ñaari yoon xob bu nekk ba tey ñoo leen dugg xam ngeen. yenn yi moom daanaka yow da ngay duma sax yaay mujj am gàcce parce que dama ne lu ñu am ñoom ci ay xob xob bu nekk su la neexee ñu def ko ñaari xob ba tey ñun ñoo gañe moo tax ma ne leen ñun parrainage bi daanaka ab toxantu rek la ak ñëw saafonte ak mbokk yi mbokk yi 85 députés ni muy tëddee Dakar région là wax juróomi département Yéwi Askan Wi moo gañee département bu Dakar yewi askan bi mo gagné bu way yewi askan bi mo gagné bu Rufisque yeewi ñëpp ko fi gis kess bu ñu dëpp Pikine bi nak ba askanu yewi askan bi diko fa ñaawlu dama ne bi yon inshallah allah su ci yàlla di dinañ def suñu kéem katan ba taxawaayu Dakar bu bu Kër Massar ak bu way mu daldi di bok ak taxawaayu Pikine région de Dakar la wax région bobu juróomi département yi suñ ko gañee na ngeen japp am ngeen 23 députés ne ben ngeen yokk ci Ziguinchor région de Ziguinchor ñu ngi may dégg ngeen yokkaat ci 6 députés muy ñaata 29 ñu dóor leen duma leen sëlëmal leen Thiès mu yeneen deux députés muy ñaata 31 Mbàkke foofu moom daanaka dañuy góorgóorlu sax ba dëkk Serigne Touba mu bañ fa am élection député fa nekk euh, muy département de Diourbel deux députés muy ñaata 38 ngeen jël score coalition score Askan mi 557 667 voix loolu su ngeen ko indee ci liste nationale yeneen 26 député mooy yokku ci 36 yi bu ci 38 yi 64 64 38 député ngeen bàyyi Diourbel ñëw national ak 26 député muy ñaata 64 waaw xanaa nag diaspora bi xanaa Macky Sall amul sañ-sañ ne mi ngi dem Amérique wala mi ngi dem Europe waa Italie ak may dégg waa Espagne ak may dégg waa France ak may dégg dëkk ça yëpp ay sens interdit la pour moom Afrique moom moo ko bàyyi su ngeen jëlee quinze député wu diaspora bi muy ñaata soixante dix neuf waaw soixante dix neuf sur quatre vingt ñaata moo manqué waaw xanaa nag bi yoon nag dina góor bu ba a invalider suñu list fële ci dëkk membre giraas yi mooy Kédougou muy ñaata coalition bi mën na nekk wala mënul nekk moo tax ma leen na ngeen ma waxal bojo bojo yee ñoo seetaan ah. kon nag

ci benn semaine ñu luxus ne génn nañ soixante quinze mille parrain dama ne lu ma leen waxoon ci local yi élection yi kees yi ku ko laal ñu laal la élection yi su ngeen ko laalee ñu laal leen kon nag lii di xel nañ ko teg ci yoon suñu kees te kenn du sàcc suñu élection ñu ngi may dégg ñoom ñoom ñoo jaaxle dama ne xanaa nag ma baaxee ko président Macky Sall su ma mag la na na bàyyi na bàyyi yeewi askan wi bu muy catu na na bàyyi askan wi bu muy joxoñ problème mu président Macky Sall mooy APR ak benn bokk baakaaram boobu du ñun na góorgóorlu ba investiture yooyu yu muy am na góorgóorlu ba yaakaar bañ a tas biir APR ak biir benn bokk baakaar boobu ñun waa yeewi askan wi daanaka ci gàttal ah, taal bu yàlla taal ku ci yàlla may xel na nga góorgóorlu ko sànd ci mat yeewi askan wi taal bu yàlla taal la nañ ko nangu noonu te suñ ko nanguwulee tamit nañ leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ parce que noonu lay tëddee incha allah yaakaaru askan wi dañ ko teg ci coalition yeewi askan wi te dañu fas yéene ànd ak askanu Sénégal siggil Sénégal loolu daal mbokk yi bañ a guddal mooy kàddu yi ma ne Dakar Dakar ça c'est acquis je peux me permettre de dire à certaines personnes autour de cette table hommes et femmes honorables députés en vos rangs et titres je vous salue nous ne travaillons pas pour une victoire au niveau du département de Dakar Dakar ñaari député ñom 2017 nous xam nañ luñ fa au Parcel dem président Macky Sall dem na ba élection Dakar su ko kon mom ci nangou na que élection 2017 dañu dëpp caisse dëpp sous 2017 Inch'Allah, depuis fi amati parce que nous allons être à cheval sur les bureaux de vote sur les centres de vote et nous allons nous assurer que nous sommes présents dans tous les centres et tous les bureaux de vote jusqu'au décompte et la publication des résultats Comme juróom Il siège Dakar

bala ñuy lijjanti seen troisième mandat ñun nañu lijjanti suñu cohabitation wax bi jeex maa ngi leen di gërëm di jërëjëf